rouge de sang ndax takk deret la def ci ñibbisik Macky Sall jàpp gi nu ko mën a jàpp Moustapha Ndiek Sarr ne moo tax Bougane kenn xamul lu muy nduru ndax li Ousmane Sonko doon def ba mu newee ca opposition ba képp lay def ni waxtu waxtu woowa ca booba lépp yéenekaay Amadou Ba di tontu Ousmane Sonko moom premier ministre ba woon ne daa jëloon congé waaye ñibbisi na ca Les Échos it mu xamal loola Ousmane Sonko ne ko dellusi na fàttali ko itam ne prérogative bu gouvernement du jooytu waaye mooy dalal xel yi saafara yi Amadou Ba kay démb ci Jomaay ak Sonko la gontu l'info ne ndaje mam doon amal ca Parcelles Assainies ca la jaaree moom Amadou Ba chargé nguur gu bees gi milliards ndax yéene kaay boobaa ngi xamal ni njaboot ga doon titre foncier booba ñuy xëccoo jébbal nañu dossier bi njiitu réew mi Bassirou Jomaay Fay naka la ko jot rek moom Jomaay yéene kaay bi ne da koo ministre de la justice ngir mu def ca la ca war ñu des ak président Bassirou Jomaay Fay mooma réew mi quotidien xamal ñu ne dana dem ca Bakel ak Matam yéenekaay bi ne waaye jàmbat yu baree ko fay xaar ndax askan walaru ca dex ba wal fekk si leen seeni kër jural leeni jafe-jafe l'observateur ne musiba kay la mujjee doon ndax ñetti gone ñàkk nanu seen bakkan luy tolloog fukk amee ca gaañu-gaañu yéenekaay bi ne kaw bu rëy moo am ci bët gànnaaru réew mi ndax ay dëkk-dëkkaan di ay village waaye it ay tool ndox ma yàq na lépp le quotidien sayit fa mu natt yàqu-yàqu ya ca tool bi ne gone juróom-ñaari at moo fa lab bi OMVS artu woon journal ba ne amul benn effet bu ca topp maanaam amul génn njeexital njeexitalu musiba mbàbbakumba bi nag yéenekaay bi bi ne mën naa tax ñu dàq élection yi njaga si la expert électoral ne lu gën a néew loola taxoon nañu dàq élection législative yu 2006 yéenekaay bi ne te ñetti nit ñàkk nañu ci seen bakkan ñeneen amee cay gaañu gaañu ay njaboot ñu rawale leen ca Ila Morphil waaye journal bi leeral ne lii du tax ñu dàq élection yi li ko waral mooy élection législative yooye bu amul wote budget dana doon jafe-jafe programme ak projet yi nguur gu bees gi am itam bi ñu nar a doxal ak la mu nar a jur ni ngëneel moom lay faram-fàccee ca di wax lan moo a changer nouveau référentiel booba mu ne rupture bu rëy la bu ñu ko méngaleeg li fi amoon dugg na ni ci cycle bu bees boo xam ne jàpp nañu ne mën naa dem ba ñaar fukki at suqali koom mu Sénégal fexe it askan wi yëg yokkute ci tënk mooy ngëneeli boobale programme bu bees bu nar ñëw génne Sénégal ci guuta gi mu ne guuta gi ñu nekk tey nag di finance publique yéeg ni mu sooxe lii ko caa la xëy ne leen accusé levez muy Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Moustapha Ba yéenekaay bi ne bu dee Macky Sall tontu na ñoom ñett ñooña moom ba tey patt lañu maye kenn ca ñoom yëkkatiwu ca kàddu indi leeral ci li ñu lay tuumal Idrissa Seck ak ñàkk yëkkatiam kàddu gi boobaak léegi la yaakaaralam googu nag li ca gën a doy waar mooy ñu ngi dëkk ma lay élection législative xëccoo gu mag war a am Thiès waaye ba tey idée ngi ne ci ñiy wax ak def tàmbali seen campagne enquête ne ñoom ñëpp ay hors la lañu ba ci taskatu xibaar yee leen cay topp moo xam ñay meeting la moo xam ñay conférence de presse la njiital CNRA gu bees gi yéenekaay booba di ñu xamal ne dialogue la jiital la ta sanction réew mi quotidien di ñu xamal ne sax CNRA mooma fekk si tribune waxtu woo ma nga naan dañ leen bàyyee seen bopp abandonné à leur triste sort ba ne nanu dëkkeeg seenuk nekkin foo natt metti waay ba weesu na ko source a ñaar téeméeri junni nit ñoo ne ci njàqare guddi gu bët setagul journal bi ne yoon yañ doon jaar dafa dagg pont ya màbb seen liggéey yépp taxaw ko ci amoon tool ndox ma yàq na ko journal bi ne njàqare dëgg la askan woowa nekkee le témoin moom li ko jaaxal mooy élève u national aviation Toulouse mine Paris yéenekaay bi ne ba tey amul benn étudiant sénégalais bu doon polytechnicien bu Paris jaaree ko ci voie royale wuuteeg marocain yeeg tunisien yi nga xam ne lu nu teg ñu jël yóbbu l'observateur ak yeneen yéenekaay xëy yóbbu ñu port autonome bu Ndakaaru xamal ñu ne bateau dafa coulé maanaam diig ci géej gi princesse Jessica yéenekaay bi de l'observateur dellu si ne ko beneen bateau mbëkkee ak ñetti marin ya ca ne te ne ci jafe

yoon nag premier match bi da koo ñàkk ndax assignation en référé ga mu defoon fukki fan ak ñeent weeru octobre bii ñu weesu dañu ko gàntal ñu wax ci mbiram soxna nu fekk mu faatu ca ngor réew mi quotidien ne kanu njort ne moo ko faat teg nañu ko loxo ca salir l'observateur dikk ca lees waxul ga coow la na mu demee xeex ba ba ci ka doon jaay boppam te mujjee caa ñàkk ba kanam ñu taxaw foofa ñaanal leen kenn dal jàmm dig daje ëllëg incha allah AGT News